ñu lancer kañar nga xool jot na Amina am oto ah wala jot na Amina lan. kenn moomu ko daal en <laughs> léegi mm. léegi nga gis kon euh, ñoom taxawaay boobu ñu def dañ ci am benn chance. parce que mm-hmm. seen i militants dañ leen déggal wóolu leen am fu ñu leen teg foo xamante ne moo waral lu ñu leen woo ñu wuyu leen si. Euh, facilité boobu nag la ñu utiliser di ko jëfandikoo ba yegg ci pouvoir bi. Mm-hmm. léegi li li jaaxal ni ñu lu bëri nag mooy bi ñu yeggee ci pouvoir dañu doon xaar tey ñu jëfandikoo euh, mbiri état bi. comme ni ko nit ñi daan defee xam nga campagne yu mësaan jub si am daan gis ñu jël kat kaatu état bi yëpp taf ci ay kii mhm. taf ci ay fas ñi taf ñi nag man ñu koy campagne benn oto dootul disponible yëpp ngeen dugal ko ci àll bi ñi ñiy del te li ci gën a garaaw sax mooy dañ koy taf taf ci ay kii yooyu boo demee ci mhm. yenn gars yi liggéey ci sérigraphie yooyu dañ koy def taf ko ba oto bi daj nga def ci effigie wu seen tête de liste wala bi campagne ko def yooyu noonu yëpp te loolu lépp alalu askan wi la moo moo ko mm-hmm. carburant bi nga def carburant wu askan bi lépp alalu askan wi la mm-hmm. mais da nga daan sentir ne sax dafa daan am benn rupture d'égalité parce que ki jiite ki jiitu toujours dafa daan wane dooleem ab moyen état bi daan campagne mm-hmm. donc loolu tey ji ñoom bu ñëwee ne dañuy def levée de fonds ah askan wi nga gis mu gis ñoom xam nga leen toog ak ñu ne man nga gis ñoom dañuy toog ñu ne man sama 5000 francs bi maa ko dugal ah waaye mm-hmm. waaye de wax dëgg yàlla innovation bi ku ko tàccuwul mm-hmm. waroo koo xalab parce loolu dafa dafay neex nit ñi ñu xam ne kii kat suñu xaalis nekkul di ko politiquer mm-hmm. parce que ah, loolu ñu yor foofu noonu suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm moom lañ leen dénk foofu mais bu ñu ko politiquer dañuy war mais comme ñoom yërëm nañu ba politiquer wuñu ko loolu rafet la. mais Moustapha est-ce que parti boo xam ne ne kenn xam ko wala parti boo xam ne bëriwul xaalis mais da ngay gis ne daanaka katkaay dañuy dawal ak alal ji nga xam ne dañ koy jël di ko def ci campagne bi yow tu as l'impression que ñii ay lobby moo leen di finance wala fan la ñu seen financement pour man jot na ñu tëgg benn loi boo xamante ne dinañ lijjanti parce que parti yi nekk Sénégal bëri na plus de 300 partis kenn du xam seen financement yi di jugee waaw mais bëri na si ñoom ñoo xamante ne ami mm-hmm. bu dee parti bu dee bu dee yenn gaay yi dañuy ruube nii rek ñenn ñi dañuy nappee rek mais ñenn ñi amuñu dara yooruñ non yéen yoruñu dañuy nappe xam nga Sénégal nappe fii dafay dafay dafay gaaw. nappante la mais am na ñeneen ñoo xam ne nag ay ay ay ay stratégie la ñuy def. maanaam mm-hmm. dañuy am seen parti bu élection yi jeexee wala bu dara amee après ñu wiiri dem bokk ci si parti au pouvoir. parce que dañuy ay affaires si lañ yoo xam ne dañ naan dañuy def lépp lu ñu mën ba seen i intérêt ñu mën koo préserver donc ñooñu euh, taxawaay boobu la ñu am léegi nag parti bëri nañ. mais bëri na ñoo xam ne doxalin bi ñu doon doxalee moo leen fi bàyyi ba tey. Mhm. maanaam parti boo xam ne dafay mel ni bu dee parti bi parti nangam euh, nu la tudd ami moo yor parti bi ami mooy mhm. joxe dépense yi. mu chaise bu damee sax ami moo koy fay. Mhm. lépp ci parti bi li ñuy wax naan ay jaay carte yooyu tuuti lay indi. un cinquième ci contribution parti bi lay doon mooy 1000 francs yi ngeen di jaayee 2000 léegi loolu day jox borom parti bi doole boo xam ne ñi amuñu ko. maanaam ku ne muut maa mottalee doon da ngeen di àndoor ngeen da ngeen di nangu ngeen toog ci parti bi nangoo leen génn parti bi donc loolu ak ñii seen façon de faire bi nii tey jii militants yi dañuy am dañuy am benn exigence boo xam ne dañ koy am ci ñoom parce que mm-hmm. Mm-hmm. obligation lay doon ci ñoom ñu liggéey obligation lay doon ci ñoom ci liggéey moo tax foofu dama ciy profité am na ci ñoo xamante ne tey jii amee mm-hmm. gis nga balaa ñu doon fàllu Euh, gars yi xam nga am na ñu bëri dañ daan def tournée même président Bassirou Diomaye da ko daan def. def mm-hmm. tournée dem dem dem Paris dem dem Madrid dem feneen ak feneen wër dëkk yooyu yëpp espace Schengen bi daje fa ak ay sénégalais yu bëri am na ñoom sax fa lañ mënante ñoom parfois nga déggee ci koo xam ne danaa naan président pourtant de président Diomaye ba mu ñëwee fi mën nañ sax envoyé photo yi. ñoo ñoo taxawoon nii fii Paris ñoo nekkandoo fii wala ministre sàngam daanuñu daanuñu gëj a déggante wala daanuñu def nangam ak nangam ak dañoo jaxasoo woon mais de dama seetlu ba ñu faloo ba léegi nii daal jot ko jafe na lool. Mm-hmm. wala DG sàngam ba ñu faloo ba léegi jot ko jafe na lool te saa waay de daaw ñu toog ñaari fan wala benn fan te ñu ñu ñaar yooyu rafetul. Mm-hmm. yooyu rafetul. d'accord nañ nag waxuñu foo leen toll ngeen di jël seen téléphone di woon mais am na ñoo xamante ne colère et ça crée des frustrations il faut éviter ça. Mm-hmm. day créer ay frustration am na ñoo xamante ne tey jii fii laajuñu leen dara reconnaissance kese la ñu laaj. reconnaissance dong dong dong dong. du xaalis de parce que ñoom yàlla teral na leen ba pare. du xaalis yàlla teral na leen ba pare mais da ngay am benn reconnaissance benn Moustapha mënu fa woon a nekk tey ji ñëpp xam ni mu demee pour ma ñëw Paris sax dañ may fayal billet bi ma ñëw ka may fayal billet bi ma dem fekk ji ko yendu këram nekk ak moom jàmmante ak moom jàmm ak saa ma ñëw fi ñu def ma benn DG bu ma gisee benn vocal am wala ma gis benn message am du ko tontu wala damay toog cinq jours de colton ne ko maa ngi jéggalu bro temps activités yu bëri non non non mm-hmm. gis naa fi benn benn benn benn benn ministre pour ne pas dire secrétaire d'État xam lu mu wax. nee na bu bu xëyee dafa am benn programme moom bu mu teg. bu xëyee mu ne ma ba su ma xëyee huit heures damay xool mbir mi liggéey bi nu mu demee ak yooyu. Mm-hmm. entre onze heures ba ba douze heures wala onze heures ba douze heures trente mu ne damay nekk si téléphone du xool message yi. mais mm-hmm. mu ne ma xool ah, parce que am na dama jàpp ne faw ma tontu leen te eh, dama dama dama comprendre exigence yi mu ne ma mu ma dama dama arrangé sama programme ba damay jël benn temps ma ne temps bi téléphone bi moo ko moom. Mm-hmm. moo tax mais loolu organisation la laaj. am na ñoo xam ne tey jii loo xat xat xat xat xat loo xat xat xat xat boo leen da leen di tontu non tontu leen mhm. mais même ami soo ma tontuwul tey jii boo toogee bu guddi wala benn xaaju guddi mais nga def benn vocal ne ah ami man kat ami wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla tey damaa am réunion douze heures trente douze heures quatorze heures maa ngi dem fële pare fa gis PM gis mhm. naa nga mag naa mu il faut ma comprendre mais reconnaissance nga xam ne kii kat yëg na waaye def silence do du la jotati fenn du la def leen c'est vrai dañ leen jox pour ñu liggéey laaj ñu woon mais am na yoo xamante tamit ñëpp yemuñu am na comme da nga ko mu ne non amul problème ah parce que non mm. mais ne ñii en mm-hmm. am na ñoom su leen bindee léegi minute moo toog ñu tontu ma mm-hmm. du mm-hmm. mais am na si ñoo xamante ne quand même xam nañ leen waaw balaa ñu doon ñëw nañ doon yalwaanee émission ak nañ doon taxawee ak léegi nii boo leen message bu ñu tontu c'est tout un problème waaw diaspora bi nag ñu si gën a amaat amati problème te bëccëgal nañu guddil nañ leen kon yëg-yëg dafa am solo mhm. waaw am premier ministre mooy tontu message waxuma laa DG wala wala wala wala ministre ci yëg la bokk quoi yëg la mhm. yëg la xam nga maa ngi ko doon jooytu ce matin ma ne Sénégal dañu am problème tamit da ngay gis direction boo xamante ne dañ leen adressé mille et une lettres doo si tontu benn. Mhm. mais pour lan ñi lay bind lettre gënuñ la. Mhm. déedéet yàlla mooy teg place boobu. Mhm. lettre bu ñëw da ko war a tontu ak lu mu munti mel ak lu mu munti toll da nga war a am service yoo ne ay secrétaire yoo xam ne lettre bu dugg ñu tontu ko. lettre bu dugg ñu tontu ko waaye lettre bu ñëw ñu ne eh, kii day caaxaan tegal ma noonu. monsieur le directeur est-ce que mën nañoo xam nangam ak nangam nga ne kii kii daa sox yoonam nekku ci tegal ma noonu mhm. déedéet yoonam mi ngi ci kay parce que yéen dañee naa dénk moomoo leen mhm. te loolu ñoom ñëpp dañ ko war a xam ñuy tontu nit ñi di jël seen ay téléphone waxuma di guy téléphone foo toll parce que li fiy appel yëpp du kenn mënu koo jël mais di wax ak ñi nga war a waxal ak ñoo xam ne tamit reconnaissance donc lañ leen laaj kooku benn message bu ma doon dëgg la mbay message bi lu am am solo la yaakaar na même bu dul ñoom sax mais nit ci hmm. boppam da nga war a am reconnaissance envers ci li nga xamante ne peut-être am na ci ay situation xamante ne tolloon nga fa moom dong nga doon gis am na ñoo xam ne dañ la non man j'ai comprimé nag. yow comprendre mais yàlla baax na nañ doxal liggéey bi voilà amuñu leen partagé la ami man li mu ci li mu ci gën a métti li may wax nii du caaxaan li mu ci mhm. gën a métti mooy côté diaspora bi. Mhm. am na si ñoom lu nekk dajal nañ ko gars yi. Mhm. lu ne keroog ba ñu déggee monsieur seen tur ba mu génnee ci conseil des ministres lañ fàtte ñu xam nga lu ñu wax. mais message félicitation message félicitation félicitation sax da nga koy koo xamante ne a fallu que mu toog une semaine Mhm. bon dañuy d' accord message dina taw parce que ñi la xam ñëpp nañ la félicité mhm. mais nga jël sa temps ami mhm. jël sa temps lire lire ñëpp nga toog ni tey balaa maa tëdd si la ñëpp naa leen tontu donc loolu daal nañ ci nañ ci bàyyi xel bu baax a baax daal. dëgg la mbay message bi jàll la yëg-yëg dafa am solo. c'est important aimé leen partager live bi ñu jot ko seen notification mën ko jot ngir fekk suñu taan bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy amal jamono ji seen émission le soir la ñu koy amal du lundi au jeudi bu 20h jotee di jotaane actualité itam tolluwaayu réew mi tey nekk seen dernier numéro de la semaine mais Moustapha mu am boo xam ne daanaka moo lañ yi xam naa ne du man dong maa koy posé mais mosuñu gis koo xamante ne dafa bokk ci état bi nekk premier ministre ba pare di laaj sa parti mu lancé cagnotte alors que dañ daan gis ñoom ñi nga xam ne bu ñu daan nguur gi rek bu ñu soxlaa li nga xam ne moo di koppar pour campagne duñu pour jël ci alalu nga xam ne mooy alalu état bi nga amal seen campagne mais ñu gis ne lii c'est inédit koo xam te ne nekk na premier ministre par thème daanaka moo nekk au pouvoir mais n'empêche que mu ngi incité à ce que ñi nga xam te ñooy ay militants ak sympathisants ñu cotiser continuer li nga xam te ne mooy di cagnotte bi ñu doon def euh, saa su nekk waa mais loolu daf si bëgg wan nit ñi ne. Mhm. xaalisu état kenn moomu ko. Mhm. état moo ko moom waaye nekk ministre warul tax ngay sàcc xaalis loolu la leen bëgg wax ba mu tax mu ne ministre bu nekk di nga cotiser tey te préciser ne li nga xam ne yaa ko ñaq mu lew la doom. waaw li nga moom li nga moom ñaq ko mu lew la doom nga cotiser si. Mhm. c'est très important. Mhm. waxuñ ni nga këpp kees mhm. euh, sa Kaolack bëgg naa ami gañal ma Kaolack. ma xam ne ami ñi muy dajal Kaolack métti na ñoom Serigne Bouba nga fa affaire yu métti na lool. ma ne ami nan laa de ma ne ami naa ko yóbbu port su ma ko yóbbu port port am na xaalis bu baax quoi wala ma ne noonu naa yóbbu ami lonage su ñëwee boo amee lonance ami day tibbee gauche droite gauche droite jël xaritam yëpp yóbbu jël xarit yëpp yóbbu non gone ak bustaan yëpp ami yóbbu leen lonance ñëpp ami casé leen lonance nag pour yaakaar ne dina ci am après électoral no noonu la ñuy demee ah,